loolu ngeen gis alaaji Clédor Diagne mooy juma Touba ren ci màggal gi nit ñi tàmbali ñëw keroog àllarba jàpp alxames kaaru sotra gi ñëw fépp foo xam ni ci àdduna la ay doom aadama jóge nañ fa ñëw Touba. Euh, juma ji ñu ngi ko ko maye woon ca Gabon bu mu liggéeyee defar fa gi ginnaaw ñu di ko tasaare mu mer ci yàlla xamal ko ni danaa la may ñetti juma ci réew ma muy njaareem moo jëkk Touba topp ci. wax nañ ni Daaru Musti moo ko ñetteel ah, kaar yi ñëw tey it coono ba nga xamee ni gars yi moom lañ daan sonn di dox guddi gi di ko fekk si di ko fekk ba gànnaar ak xomaak ak yéen ak fu jafe-jafe mu si nekk fekk nañ ko ba gabon ak i tànk loolu moom la ko yàlla fee tey warwaay yi nga xam ni moom la yombal muy oto muy saxaar muy saret muy lépp lu mën a daw du ko jëm Touba di ko fekk si ci màggal gi eh, jërëjëf El Hadj Ousseynou Diagne jërëjëf El Hadj Moustapha gis ngeen saxaar yi ni nit ñi mel lu tax jéggi ga mu jéggi woon nit ñi wuti boromam la ko boromam fayee nit ñi màggal gi nag eh, Moustapha dafa bare ñu ko réere ñu defee ni màggal gi dañuy màggal bis bi sëriñ tubaa ñibbisee déedéet dañuy màggal bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba demee ci géej gi bisu gaawu la woon bis boobu mooy màggal gi màggalu ñibbisi gi Daaru Salaam maam Cheikh Anta moo koy màggal sëriñ tubaa nag màggal gi la woote màggal gi bu jëkk tabaski waat lañu ko tuddee woon muy gën a yaatu nag ginnaaw mbiru sëriñ Touba day gën a jëm kanam muy yaatu di yaatu ba egsi fii ndax dafa wax ni